ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك kon ndekete li tax yàlla maadama ba jëkk ba mooy jaamu yàlla ñaareel ba mooy liggéey moo tax nit wërsta mën a tëdd rek ñu yàcc ñu yaasar ni ko ñuy waxee rek bàyyi ko rek wala jàpp nit nit ñoo la war a yor maanaam nit dafa war di dundee aw ñaqam eh, amaar googu nag sunu borom da ko wax ci surtout Huud eh, Sëriñ Yaasan huwa ansaakum min al ardi wastaamarakum fii maa leen fi indi pour ngeen liggéey parce que loolu boo demee ci eh, sama sëriñ boobu ca medin abi bakrin aljazairi borom ay su tafasir dafa ni liggéey li tax moo am solo day tax yàlla gërëm la day tax nit ñi gërëm la day tax nga am sa intégrité personnelle waaw mooy ñaareel bi ñetteel ba mooy alxilaafa mooy nga wuutu yàlla waaw inni jaalu fi ardi xalifa yàlla ko wax wa qaala rabbuka lil malaikati inni jaalu fi ardi xalifa yàlla dafa ni dafa wax eh, malaaka yi moo tax diisoo baax na yàlla bind malaaka yi bu buy waxtaan ak ñoom at mu jot ñu fi tëjee si ci juma yi caravane ji ramadan bi nga xamante ni ren jii la am fukkee bi ak juróom nit ñëw ci pàkk yoo xamante ni pàkki jaamu yàlla la pàkki wax lu baax la pàkki jëf lu baax la ñu ñëw ànd ak bokk ñu yépp duñu ko lim ngi ci yoon bi ak ñi gandal ñepp ci Ahmada Tidiane ñi ñi tok ak ila fek bokk yi kilifa yi media bi d'une manière générale national comme international ñun ñepp ñi fi ñu jëm rek ñu and ak ñi ngir lañ fay wax ñu mën ko yaatal di nuyu bu baax borom pàkk bi nga xam ne mooy jëwriñ ji Serigne Assane Kane ci taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci kër Cheikh El Khadim radiyallahu anhu waaye taxawaayam ci réew mi waaye taxawaayam ci dëkk bi xam naa it di gërëm bu baax.

ba mu ràññi ko ci juróom fukki nit yi nga xamante ni ñoom lañu tànn ci àdduna bi ci cinquante quatre pays yi di ajaalee ticket mu ànd ak ci caravane bi ak bopp ñu ko ànd ak yëpp tey nag imaam waxtaan bu gàtt la bu gàtt gàtt lool mooy fii réew mi toll fii jafe-jafe toll fii koor gi toll war a waaj di génne zakatul fitri te farata la ci ko baax yonent bi moo ko farataal yonent bi nag lu mu def yàlla ko bañ ko laajee ni ko foo ko teg qad aflaha man tazakkaa wa texe na kan qad na ki nga xamante ni génne na asaka muurum koor la ci yàlla jublu waaye nag tudd boroomam dem julli ji kon jul mbooleem jul bu nekk na bàyyi xel ni asaka mburum koor toll nañ ci waxtoo ngir yi nag ak boroom xam-xam yi bari na yu ci wax waaye dañoo toll ci rénové rénové ak li naan recyclage bu jëkkoon ceeb lañ koy defee dugub ceeb baax na dugub baax na waaye kàngam yi mazhabi imaamu Maliki ak kàngami shafia yi ak kàngami xanaa xanaabila yi ñoom ñépp daje nañu daal di ni sharia lim ci jublu mooy bis bi néew ju doole bi du dem di lijjali kenn ci laaj ñu bari dañoo waxoon ni li ëpp lu ñuy dunde ci at mi waaye loolu woon ni na woon ni na li ëpp lu ñuy dunde ci bis bi sharia dafa bëgg boo toggee tufe ak soos néew ju doole bi tomb ko loolu lépp sariya bëgg waaye nga nekk sa dëkkandoo mu leem ay ganaaram te mënoo amub ceeb musiba la dafa am benn néew ci doole ju ko ju ko dégg ci man ci média yi ñëw ba ci man ni ma dafa am am at ñu indil ma saakub ceeb sama kër yi goro ñu indil ma ko guddi ni ko bëcc ci ëtt bi te wóor na ma ne uma ganaar te mën ma koo jaayee kon lii nga wax ñëpp war nañ koo dégg kon avec murum koor génn ko xaalis daa gën ci chariatul islamiyya daa gën ci néew ji doole bi boo ko mënul lool nga génne ko yàpp wala ganaar mais ceeb wala dugub baax na waaye bu demee ba mënta ñàkk nag ñu génne ko loola bu boobaa bopp bu nekk la ca gën mooy 1000 francs boo amee fukki doom génneel 10000 bu dee ak yow ak ndeyam muy 12000 bu ko séddale nil francs ci 2000 jox ko kenn rek boo ko defee bu demee dina ci maanaam ñeenti ganaar wala ñett akum dugg sharia li mu bëgg mooy bisu korite gi bu ñi am doole dee téral seen i njaboot ñi néew doole di téral seen i njaboot te li ëpp lu ñuy dunde ci at mi ñu bari ñu baree bari dañ koy wax waaye lépp solo mooy la ëpp la ñuy dunde ca bis ba ca bis ba pas ci at mi ca bis ba na leer ndax eh, dañoo toll ci tajdid maanaam rénové ndax suñu mag ña ak kàngam ya buñ doon dund ci jamono bii rénovation bii dañ koy def xam-xam moom ñaarey masaahib yi moo tax masaahib yëpp ay référence lañu waaye du ñu ay source source bi ñaar rek la doy alquraanul karim ak sunna mooy source bi te sunu borom subhanahu wa taala moo ne woon taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan mooy na ngeen dimbalante ci lu mbaax ak ragal yàlla ak jàppalante te bu leen dimbalante ci mbon wala kàccoo kon mbooleem kuy déglu jumaa ji mbooleem ku nekk ci jumaa ji na xam ni kàddug lislaam jub na muy korite gii ñu séentu képp kuy génne muurum koor la ca gën sënoo ci boroom xam-xam yi dëkkoog jamono mooy nañ ko génne koppar soo ko amul nga génne koy ndawal wala ganaar boo ci bonay boolem ndugg moo gën nga jox ko néew ji doole yi ngir boo toggee sa njaboot lekk ñoom it ñu togg sa njaboot lekk waaye nag xel nanguwul nga yeew sam xar daal jàng alxuraan julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu baax tere aw safaan sëñ Tuubaa ne kuy def yeneen yu dul yii bu la yàlla jàppee lam lay def du ko def loo kenn moo ko defal bopp kon nit ñi nañ leen di taxaw te di leen jariñ te bañ leen di jariñ c'est important fa may daanee rek sëñ Yaasan jëmm daa ñëw ci Seexul Xadiim ànd ak kenn ni ko kii sama jaam la dama la koy jébbal si sëriñ Tuubaa ni niko ni ko wax mun sama jam, la dama la koy jëbbal si mu julli ñaar ni ko wax mun ko sama jam, la dama la koy jëbbal si sëriñ Tuubaa niko ko soo ko moomee yaa ma moom ndax maa moom maa moom bokk borom soo ko moomee yaa ma moom ndax maa moom bokk borom kon jaam ñi jaami yàlla la ñu jaami kenn dul waral at mu jot ci bu lab nga ni bu alxuraan la pàkk bu xasida la pàkk bu dimbalee la pàkk bu borom xam-xam la waaw damay faral di wax ni ki kilifa yëpp ñu ngi may yónnee ci Serigne Assane nuyu voir université yi gën a mag professeur Lamine Ndiaye fi lay jublu si incha allah ndax ñun ñëpp ñu ngi lay tamit n'importe où waaw ah, waaye duñu wax it n'importe quoi moo tax fu ñu dem rek dañ koy natt yow nag sa xam-xam wér na sa njub làmbi na sa pàcc bi yàlla tax loolu kon suñu ñëw fii ci yow soññal ci yow waaye fàttali ci ñun moo tax at ah bu jot lu ma xam xatoon naa lool ren ma nekk ni ci aw yoon sax waaye dama ne si ñaasan du ma ko du ko tey bi mukk dañu kon boo kàddu bi lislaam ci turu sëñ Asan daal mooy kuy génnee muurum koor na ko def ay combat waaw bu ko defee dimbali ay dëkkandoom ndax réew mi dañoo sonn réew mi dañoo xiif foog ñu wax waaw te kilifa diine yi ñoo ab li pour wax ko parce que sans politique bi dafa polluer ndax ñett fa nekk vol viol violence sàcc ak viol ak violence yi ko mën a defal nag mooy borom jikko yi borom jikko yi nekk ñetti vee la mooy lan volonté valeur vivacité mooy fokk ñu am ay valeur ay jikko te jikko yi daara daaraa koy jàngale fokk ñu am volonté fokk ñu am ak bëgg waaye fokk ñu am vivacité bu ñu yeexee réew mi yàqu wala mu toj waaw parce que gaañaan koy bëgg a toj wala ñu koy bëgg a yàq seen i intérêt clipto personnel nitu daara yi nitu diine yi nañu jug taxaw ci réew mi jag bañ ko bàyyi gaañ ñu yàqu ko te loolu nag ci diine lañ ko yaakaare ndax l'islam mooy jàngale ay diine rasulullahi alayhi salatu wasalam cinq piliers yi la ay ay ay piliers ay fondement la taxul muy l'islam l'islam ay rek la innama bu'istu li waaw mooy yàlla damaa yabal ngir ma mottali jikko yu baax ya kon julli yeeg woor yeeg dañ màkka yëpp fondement la taxul nga am kër boo bëggee am R plus nag faw nga bàyyi xel jikko yi te jikko yi daanaa ko jàngal wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu wax ci salatu ala nabi di ko wax ci di wax ñëpp ak waa bi déglu ko farata la déglu ko farata la li mu wax ci salatu ala nabi sama yaram daa daw euh, yàlla yàlla yàlla mi moom jaam ñi julliwul yàlla du yàlla yàlla du jullit yàlla du juif yàlla du chrétien bay nekk mu rek ci jàll yàlla bokkul fenn lenn dong wala yàlla dafa dog ñëpp yàlla deful leneen lu dul loola inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla salatu ala nabi dong lay def wasalaam jërëjëf damay wax ni yéen seen promotionnaire la ñaar kenn la yàlla yi jëf jàngale ak julli ci arrahman kon jàngalekat la lay lay lay lay lay defal jàmm bismillah maa ngi jégalu ñëpp di jégal ñëpp di ñaan yàlla boole di jégal insha allah ñu ngi tëj fulk bi fii altine ah, ci cinq heures ah. ci guddi gi la ñu tëj kaamil ah. dañ leen boole ñoom ñaar ñu ngi ñaan ñu ñaan ñëpp ko ko mën nga fekke si ko te yàlla yàlla nangul ñëpp jégal ñëpp may na ñu woor déwén fii li àjjana neex neex ñu xaarandi yàlla nañu ko yàlla def amiin amiin moo tax jaamu gu sellul yàlla soxlawul kon mbooleem kuy déglu jotaay bi ak foo foo foo mën a nekk ci àdduna na nga bàyyi xel ni ñett yi tax yàlla bind la ci ndigalal borom daara ji di Serigne Assane ñu koy ñaantu borom yàlla yàggal ko fi ñu yàgg ko fa fekk te lépp di taw tawféex ah kon boobu mooy bu njëkk ba mooy nit ki daal na jaamu boroomam ñaareel ba tax ba ca destaat mooy al i'mar maanaam liggéey liggéey ndax kon ndekete lii tax yàlla bindoo ma aadama ba njëkk ba mooy jaamu yàlla ñaareel ba mooy liggéey moo tax nit wërsta mën a tëdd rek ñu yàcc ñu yaasar ni ko ñuy waxee rek bàyyi ko rek walla jàpp nit nit ñoo la war a yor maanaam nit dafa war di dundee aw ñaqam iamaar googu nag sunu borom da ko wax ci surtout Huud eh, Sëriñ Asan huwa ansaakum min al ardi wastaamarakum fiiha maa leen fi indi pour ngeen liggéey parce que loolu boo demee ci eh, sama sëriñ boobu ca eh, Médine Abi Bakrin Jazaïri borom ay su tafasir dafa ni liggéey li tax moo am solo day tax yàlla gërëm la day tax nit ñi gërëm la

كيما في ووتو نك تناكو واي دا فا غوما تي روح موي ادم كون اني جاعل في الارض خليفه كون نيت دا فا ورا ريبريزنت يالا تي كو سوف تي جاسم واي نك دا ماي فرال دي وخني نييب يالا يالا نييب لا في نيكال اه اه سيري حسن يالا نييب لا في نيكال واي نييب نيكلو في يالا رحم الله يالا موم نييب لا في نيكال ñëpp la fi yàlla nekkal waaye ñëpp nekkul fi yàlla yàlla boo ko fi bëggee nekkal foog nga am benn ñett yi wala nga boole ko boo ci bokkul rek ko ci ñi fi nekkal yàlla moo tax nag ñu bari dañu defe ni ñooy représenté yàlla ci ko suuf fekk ne booba xam nga ku tekki dara ak ku tekkee dara ci lan la mooy jikko jikko ju rafet ku tekki nga dara jikko ju ñëw koo mën a doon tekki woo dara jikko ju rafet joojee nag nga war a am ñett bu njëkk mooy xam-xam al ilmu

ndax bu dee ñun donga daari bu ñu wéetee yow kayif ya nga ñu jox kayif nii rek nii nga koy defee rek demal di def di defalaale wax na ko wax ah kayif yombul nag <laughs> bu mu wéetee moom kay kayif ya la may jox rek ni ma am mi rek ñoo ko bokk ak moo ko waaw lay yàlla xam na loolu moom si naa ko sañ naa am naa ci preuve à l'appui waaw kon xam-xam moo gën a riche ci بن يكو بسنو برم سبحانه وتعالى دفع وقت رسول الله يقول بد بسد دل نيان مدل لخم خم وقول ربي زدني علما بد بسد بوخي نيان يال دل مخم خم وي وكو ألال وكو أن يبود وكو دارا نك نجبوت أك يباري فتنة لا زين لنسحب الشهوات من النساء والبنين والقنطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متى الحياة الدنيا ولو عندي حصن ما يال دفني مال تارا لال مانام dunduk aduna gi ma lañ ko taralal bëgg top sa bakkar ma lañ ko taral mooy ay banex ci ay jigéen ak njabot yeb banex la ak ay fas nga deg ko ay auto wala ay limousine neena na lepp lépp aduna la wax ak ñun waaye am lu gën loolu am lu dàq loolu moy sama jéggel ak sama ngërëm te njëkkalam yàlla ak ngërëmal yàlla li ko mën a joxe mooy xam-xam moo tax da ngay dégg nit diw charge la xam nga mooy charge sagesse Cheikhul Khadim da ko wax boo demee ci téere bu ñu naan jawaamiul kalim ma nga ca asan daa ni sagesse ko képp ku ñu ku ñu naan charge nga yii la boole doo ko am doo ko doo ko nekk charge mooy da ngay xóot ci xam-xam yëpp waaw nga xam ne xam-xam dama koy faral di wax sama mbokki daara yi nangul mus da ngay mëq bu baax wal nga baax da ngay xam bul xamantu da ngay jàng bu baax wala nga baax waaw ne ko sagesse mooy ku xam lool xeeti xam-xam yëpp la la cay juddoo rek mooy sagesse wa man yuutal xikmata faqad uutiya xayran kathiira yàlla nee na képp ku mu jox sagesse jox na li yiw bëri amul fenn yàlla wax yiw bëri fu dul caarkaan fu dul rek néewul alal néew daw néew xataa xam-xam wax ko dafa ni sagesse wa man yuutal xikmata faqad uutiya xayran képp ku mu def sage jox na li yiw yow change nga xamna ci dara ah parce que man duma jey moy kon xam-xam bokku na ci yoy ñaarel ba moy alal alal alal ji nit ñi mumu ñuko moo tax loo bari bari ara sañu ko yaq waaw man maalullahi waaw moo tax yàlla wax ni wala sufa am amwalakum ñin néew ñin néew xam-xam néew katan dofe bu len denk sen alal sa alal kindu du ko denk euh, ko wayu wala wala ko dalul waaw kon alal ji yàllaa ko moom alal ji dafa am lu la ci sant am lu la ci tere képp ku yore alal ci bayeer yi ak fu ñu dégg ci àdduna ñu xam ne alal ji moomuñu ko yàllaa ko moom la yàlla yaa Daawuud innaa ja'alnaaka xaliifatan fil ardi fahkum bayna naasi bil haqq wa laa tattabi' al-hawaa fa yudillaka an jox ko alal jox ko barke def ko bu yonent def ko bu général dañ ko yaa Daawuudu innaa ja'alnaaka xaliifatan fil ardi maa la def représentant ndax ñett yëpp yi waral doon doon représentant wuutu sama wuutaay kon ci kaw suuf def naa ko ci yow kon ngal la na nga àtte nit ñi ci dëgg moo tax ku yore pouvoir politique président yi nañ ma déglu képp ku yore pouvoir exécutif ministre yi nañ ma déglu képp ku yore pouvoir judiciaire mboole magistrat yi nañ nañ ma déglu mboolem ku yore pouvoir xam nga ñaari pouvoir la concentré ak décentralisation maanaam pouvoir concentré mooy pouvoir euh, politique mais décentralisation mooy maire yi képp ku doon conseil wala nga doon maire déglu waaw mooy yàlla dafa am lu mu la ci sant am lu mu la ci tere lam la ci sant mooy nit ña la wóolu ba jiital la fexeel ba bu leen war nga la bu leen war te seen alal jooju moomoo ko bu ko lekk bàyyi leen Cerno Souleymane Baal mu baax ma dëkkoon Fuuta nga xamante ni ñu bëree bëri ma ko ñu bëree bëri dañ naan ki yéeg wala ñu ni euh, euh, Jean-Paul Sartre kii Descartes am na keneen ku ñuy ku ñuy wax Jean-Jacques Rousseau waaye yu demee noonu ñooñu duñ suñu référence suñu référence ci wàllu doxalin mooy Coro Souleymane Baal mooy référence bi gën a mag ci Afrique waaw waaw bu weesoo Soundiata Keita waaw kooku moo gën a mooy ku gën a mag ci Afrique mais santul kayita Konaté la sant tudd Soundiata Jata la tudd du fa xaj <laughs> leneen la waaye Coro Baal dafa ni bi mu defee taxawee Fuuta ba Fuuta nekk juróom-benn province yooyu def congrès ci Worofonde daal di fal imaam euh, almaami Abdul Xaadir Kan almaami Abdul Xaadir Kan bañ koy fal ñëw ñëwul ci congrès ba dafa absenté dañ koo jëli dañ ko jëli ngir Cerno Souleymane Baal bi mu ko defee ba pare dafa ni ki war a jiite Fuuta foog mu nekk savant le savant waaw foog mu xam xam xam xam bu avéré mu doon ko loyal. foog mu doon ko jub foog mu doon ko am compétence kooku nag bi ñu xoolee xool ñu ko yow mii def ci toolu xare la faatu ca Mauritanie Cerno Souleymane Baal 1776 daal di ñu wër wër ba ni ko am na ko ñaan am almaami Abdul Xaadir Kan xam nga almaami moom gara maanaam euh, fonction la almaami fonction la ko mooy président Abdul Xaadir Kan ñu woo ko ni ko xam nga jub nga am nga compétence kaay ñu fal la moo tax ñaari ku naan fal leen ma téy leen fe fekkul congrès boobu dañ ko fal mu jiite Fuuta trente ci charisme ci loyauté ak Thierno Souleymane Baal daal ni képp ku kuy séddale waroo séddu ndax séddale doon na cër waaw sa maam waaw laaj naa la ko Eliman Boubacar moo ko almaami Abdul Khadir mom nak 30 ans le djité foot motax foot amna 34 almaami pendant 114 ans 114 ans Légui, mu ki djité président la wara don doon don bour non, non état ken waru ko dono duñ dono état compétence la coro Souleymane man daal di ni légui xeewal yi fi nekk nañu sàmm jigéen jangal ndaw ñi ar mag ñi xewal gi génn ci fuuta dañ ko dañ ko jox fuutanke yi mais bi mumu ñu ko naari mumu ñu ko parce que bo naar ñu fa daan ñu ak tubaab bi jàpp jaam ak jël or ya. mu fexé bo orienté ko kon lima bëgg jangalé fofu moy képp ko xamanteni doon nga njit ak fo mëna doon njit jappal ni la nga yor yalla ko mom dafa am lu ma ci sant am lu lo bayyi kon ñet yi la yalla wax li tax mu indi fi doomu adama kon mbolem ku yore pouvoir xamal ni la nga yor alal yalla nit ñi nañu jaamu yalla yalla rek lañu wara war jaamu nañu nañu dund ñu ñak nit ni day liggey ba ca desatit nañu doon ño xamanteni manam lepp lu jëm ci walu ta dañ ci mandu wa parce que bëri na ci ño xamanteni yaq yi am ci aduna yépp xolal jëmunu ji rek ha suñu rew yi te kenn du ko wax voir ñi nga wara wax sax ñi nga ci biir ñi léegi dafa am ku ñëw ci man ni ma sama njaboot la nee na ah ñëw ni ma dama lay tàggu am benn kilifa bu mag ci wàllu politique laay bëgg a àndal man ko jamono ji moom ànd ak politiciens yi gën a sëriñ ci maa la ko wax waaw. Ah. ma lu tax man ko bu dee politiciens yi yi la xew ci réew man ngeen ànd di naxante waaye ànd ak kub sëriñ fekk mu lay ndax te yëgoo ko moo garaaw te ñu bari tudd duñu ay sëriñ soit dix ans ay sëriñ lañu ndax sëriñ bu dul bu xamul jubul. léerul wérul wuyu la du sëriñ te la ñoo ñoo fi bari sëriñ bu mubbu waaw ah, sëriñ ay qualité la ah, moo tax ñun duñu dem fu bari lay yàlla xam na ko waaw ba dinañu ñu wool fi ne nii kër Cheikh fuuti Fouti ñoo may xaar jaww Cheikh Amadou Fouti yëpp ñu nga daje di ma xaar ko jikki ndax kóllëre la kon bu ko defee ñu ñëpp ñu bàyyi xel ni sëriñ bi li mu na maatoon namaatoon taal caméra yi ngir ma dolli waxaat mooy fàttali ndax dina fàttali sama bop danaa fàttali aduna yep waaw danaa fàttali njabot yi ma àndal nga xamni yalla ma bolé ñoom motax man ñap sama njabot bop man ko demal and ak politiciens yi man ko and ak politiciens ci réew mu mo gën and ko akub sëriñ waaw ndax nag maa tàggu wax na la ko sëriñ ba nga xamanteni nak la yalla yi wax defu ko la yàllay tere ci la dëkk abada ba paré sul mbubum sëriñ ñooñu lay waxal waaw waxuma ñi nga xamanteni bañu waré jang jang nañu té ñu jublu lañu waaw jëluñ seen bakkan def ko yeliman képp ku jël sa bakkan def ko yilimaan mu jiite la jàkk joo joo bëgg loonu jullee waaw kon bu ko defee loolu mooy doon kàddu gi ndax xam naa ni bëggug sëñ Assane ak xëram ak taxawaayam ci sunu jëmm yu xeebu yii rëy na moo tax euh, duñ ko teggi mukk ci ajjuba yi nga xamante ni moom lañuy ñuy tëje ci caravane bi day wax nag salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mooy ëpp tam mooy raw yi ñu weesu te yëpp di yiw te yëpp di ngërëmam rek bi jay sidna mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fii day dara motax bu fi doomu dara ñewé dang koy bayyi ak liggéey bi ñu ngi ci kamini ni fi ne sak aljuma bu ne dañ koy wacce jang téré bi ñaar ko yoon juroom ñatt dañ ko jotone ci ndigal sëñ Saliou ci lañu ñu nekk noonu kon nak boko téwé teewee day doon benen mbir yalla ci yalla faj aajo ñepp di jay sayyidina Muhammad Rasulullah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك